yow jaar loolu laa doon tontu sax ci parce que da nga maa posé une question ci sama parrainage. waaw man ne loolu man aw woon xel ñaar. ne dinaa jàll. mais damay sant yàlla sax jàllu ma ci premier contrôle bi. parce que su ma jàlloon ci premier contrôle bi gëm naa ne liggéey bi ñuy def ci parrainage bi du feeñ. parce que man xam nga dama déposé cinquante huit mille neuf cent soixante quinze parrain donc maximum bi laa déposé bi nga xamee ni bii ñoom saytu nañ ko ba génneel ma liñ ma génneel mooy def nañ ci loolu 79 yoo xam ne nee nañ nekkul ci fichier bi 79 donc ça veut que su fekkoontoon ne peut-être bi ñuy tiré au sort nekkoon naa peut-être premier daanaka 58 896 parrain lay validé bu boobaa su ma ko defoon it la ñuy wax mooy. unité musée de l'intérieur il a le fichier oui ma ah, voilà moom laa expliqué man duñu ma yàkkal parce que ki yàkkalaate moo xam ne du ma yàkkal ah, man laa wax mun nañ la yàkkal man munuñ maa ah, yàkkal man munuñ maa yàkkal parce que d'abord parce que d'abord soxlawu ma ko parce que d'abord soxlawu ma ko man dañ maa yabut ba ma yàkkal loolu mooy d'abord ñaar ñaar yëpp am na man maa la wax lii man laa wax parce que man naa wuti parrain parce que damaa jàpp ne boo munta wuti parrain jarul may dem candidature loolu mooy d' abord. donc yow bennoo laalewul ñu ak dara. ak sa non man ak sama candidature non. xanaa kay liñ ci xanaa kay liñ ci man si du man laalewuñ dara mais pour man amul solo li am solo mooy man samay erreur sax yi ñu wax ne ay doublon la analyser naa ko ba xam fu mu jóge man 15 759 parrains lañ ma waxal sur les 15 759 parrains am na plus de 11 mille parrains yoo xam ne yi. ne dañu nekk doublon quand j'ai bi ma defee samay investigation c'est des parrains qui ont eu à changer de bureau mais xam naa ci ñoo xam ne ñii duñ pare ne ñaari nit ndax ay kilifa lañ. lan nga ci conclure. bon lu ma ci conclure mooy jàll naa parrainage. non lan nga conclure. loolu danaa ko def constat boobu ko def su paree analyse bi jox ko kii de droit pour ëllëg ñu xool mais gannaaw terewumaa jàll justifié wul ma def recours. oui mais allez processus parrainage bi coow dara du fi lu bees apar ñaari candidat yooyu. nekk ah, ak am solo euh, à ñaar ñooñu leneen li yëpp dara du fi lu ah, bees. ba nga nekkee ministre de l'intérieur. am na lu fi changé même même même coow yi si. Ah, tane na rek xam nga da ngaa da ngaa suivre évolution bi moo tax. non man non waxuma waxuma pro ni ñu allégé parrainage waxuma. dialogue beeg waxuma reco waxuma recommandation. union européenne waxuma loolu dama ne. man dama ne. problème yi ñuy wax nii. mais problème yi dara du fi lu bees. fii mu nekk nii dund nañ 2019 ay problème dund nañ ko 2017. Euh, ci législative yi bu nekkee pas ministre de l'intérieur bien sûr amuñ ko ci 2019 2019 ah. c'était un contrôle moi je le reconnais le contrôle à l'arrivée était très strict président Macky Sall nga xam ne moom moo jiitu woon ci contrôle parrainage bi recalé woon nañ ko de plus de 4000 parrains pour des erreurs matérielles d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'appelait que le conseil l'appelait erreur matérielle entre-temps discussion am entre les différents partis ba ñu d'accord ne erreur matérielle dootu un alibi pour dindi un parrain boo demee ci arrêté bi mise de l'intérieur bind c'est clairement mentionné article 2 xaw ma article 4 lii tax ñu mën a invalider mooy nga juum ci discriminant bi donc ñi nga dégg ñuy kaas yëpp kenn kaasu ci ne dañoo juum ci discriminant bi